Euh, ñi nga xam rek ñoom ñoo di les députés de Yewwi Askan Wi euh, ngeen di seen noonu alors euh, ñu jël les honorables députés de Askan Wi alors moom jël leen en direct donc fii si buntu hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine déjà honorable maa ngi lay nuyu. waaw fay naa la. alors tey seen taxawaay gis nañ ko si buntu hôpital bi ginnaaw njiiti réew mi Macky Sall bu mu fi amalee ab visitam di démb. ñu gis teewaayu euh, njiitalu gëm sa bopp alors tey yeewi askan wi ñëw si buntu hôpital bi lan moo nekkoon tey seen tànk tey waaw tànk yi nga xam ne moom mooy suñu mission rek parce que tey exécutif lépp lu nga xam ne def na ko rek ñun député yi dañu war a toppaat seen i tànk xool ndax def nañ ko ci anam yi mu gën a baaxe ndax euh, ñun askan wee ñu yónni xëy na askan wi yëpp bu ñu mënoon daje fii ñoom dañ fi daje mais ñoom ñi nga xam ne ñun lañ yónni au niveau la l'Assemblée nationale ah ñun ñooy ñëw saytu si d'abord lu ñu njëkk a indi mooy bokk ci solidarité nationale bi ndax li am nii métti na trop accident bi am mooy nee nañ accident bi nga xam ne moom moo ëpp ëpp ëpp ñi nga xam ne dañoo génn àdduna ci Sénégal depuis mille cent soixante xam nga loolu métti na te et puis y a de blessés donc ñu ñëwoon tey ci hôpital bi apporter suñu solidarité ñi nga xam ne les familles des victimes ñaanal ñi nga xam ne dañoo génn àdduna yàlla xaare leen àdduna mais également euh, encourager l'équipe médical bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk donc lu ñu njëkk a seetlu mooy am nañ infrastructure bu baax tabax nañ ko tabax bu baax waaye xam nga lu ëpp solo ci hôpital mooy le contenu mooy lañ fay fekk mooy ndax am na ay euh, médecins yu doy ndax am na ay lal yu doy waaye constaté nañ ko ne vraiment benn chirurgien lañ ko fex démb lañ ko renforcer neufro tam kenn fi nekkoon dañ ko renforcer da am yoo xam ne ay volontaire lañ def ñëw kon hôpital yi mel nii bu ñu ko tabaxee mu nekk ay hôpital yu mag dañoo war a fexe ba mu am contenu mu am personnel bu day mu am plateau médical bu day état bi ñëw na démb nag bàyyi na fi xaalis ne nag dañ jël en charge ñëpp nañ fexe ngir ñu jël en charge ñëpp fexe ba duñ ko def comme fond Covid bi nga xam ne dañ koy jooy ñu bañ ko defee noonu ñu xam ne ne askan wi dañu soxla ñu yërëm leen askan wi dañu soxla ñu jàppale leen maintenant au delà de l' émotion au delà de l' émotion maintenant il faut qu'on en ne yoon wi xat yoon wi xat na lool pour que ay oto di ci jaabante di dem ko ñëw normalement fii deux voies la waroon am mu am voie aller am voie retour déjà cette cette cette route là c'est plus une route nationale mais une route internationale parce que waa Mali fi la ñuy jaar waa Burkina fi la ñuy jaar te bu ñuy ñëw c'est des camions porteurs avec une puissance ak suñu bis yi li yàlla xam doy na foofu tamit il faut qu'on pointe du doigt parce que il faudra situer les responsabilités yan responsabilités la responsabilité de l'État bi nga xam ne dafa war a andi prévention sur la sécurité routière sécurité routière tey ji sooxe na sooxe goo xam ne war nañ ci wax te laalu la responsabilité de l'État moom moo ci jiitu mooy war na fexe ba am ñu am tali yu baax mu bañ a nekk ci ay tali ñab-ñabal ingénieurs yi def seen liggéey kooku man maa ngi ciy ñëw mais état bi lay wax avant que ma ca part des administrés état moom moo war a fexe ba teg les conditions bi nga xam ne tali dañuy baax euh, bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci ñi nga xam ne nag léegi mooy les usagers wala ñi nga xam ne ñoom la ñuy yónni pour ñu defar tali yi ñoom aussi tam war nañ gën góorgóorlu seen ingéniosité ñu koy def ci seen aqulaay taala parce que li am yëpp négligence humaine la bu ñu jógee foofu nag les usagers chauffeur bi kër permis de conduire waratu koo négocier waratu koo jënd chauffeur bi war na def visite contre visite ba xam ne ndax apte na pour mën a dawal euh, bu weesoo loolu aussi tamit euh, oto yi contrôle technique yi leen di defal waratul nekk des contrôles techniques négociés mooy maanaam toog kër ga. ñu defal la euh, visit technique ne oto bi mën naa dem on nous dit que les moins de huit ans ñoo warul dugg ci dëkk bi les moins de huit ans waruñ dugg mais oto yi ko gën a màgget la ñuy mooy daw fii Sénégal ay oto yoo xam ne aussi sax sax dañ leen di dem ba di leen transformer di leen defal ay versailles bus yi ba ñuy ñëw ay places yi normal la amoon gars yokk ci versailles genre accident yi bu amee képp koo xam ne da nga ci versailles bi da ngay dee parce que sa bopp bi mooy dal ci kaw toit bi nga nga def traumatisme crânien da ngay génn àdduna kooku affaire boo gisee accident bi métti parce que ñun toogoon ci Versailles dañoo bari donc kon ñun ñëpp nañu delloo suñu xel état bi na def lu mu war a def parce que dañ koy xaymaal budget ren jii ñu ngi xayma budget bi ci six mille quatre cent milliards bokkatuma sax cherté de la vie parce que gis ngeen essence yokk na parce que yooyu yëpp moom mooy indi jafe-jafe yi imaginer essence yokk essence bu yokkee paas bi dafay yokk euh, le chauffeur laa day gën a avare da naan ah, ma doon am démb dootuma ko am kon da ngay gis ne moom dafay gën a def surcharge surcharge yooyu bu amee dafay indi jaye tout le temps ñi nga xam ne tam dañuy dugg ci oto yi dañoo war a gën a góorgóorlu parce tam gis oto boo xam ne dafa surcharge nga xam ne dafa si taawal nga gis chauffeur boo xam ne mu ngi dawal ak vitesse boo ne dafa bari nga gis chauffeur boo xam ne mu da nga a wax eh wàcce ma wala nga jël sa téléphone nga woo ne ñoom ñoo yor sécurité routière bi ñu arrêté oto boobu nga xam ne tam aussi tam dañoo nekk ci yoon yi di saytu oto yi ngir yàlla nañ bàyyi racket bi ñu góorlu ci oto yi oto bu mënta dem nañ ko téye parce que loolu moom moo indi jëy yi ba après nag day nekk médecin à la après à la mort parce que ñu ngi def tey jii euh, euh, conseil interministériel ban njëriñ la ñu war a amal lu ñu war a wax démb ñu wax ko tey j'ai une solution nous avons une solution ñu yeewi askan bi solution bi mooy nañ réhabiliter le train Dakar Bamako daa war di daw marchandise yi ñuy def ci yoon ñu def ko ci biir euh, wagon marchandise dina gën a yombal liggéey bi c'est-à-dire nañ pour mën a alléger transport pour gën a mën a alléger transport bi noonu la ñu war a def c'est-à-dire na train bi ñëwaat train bi mu ngi doon desservir partout dans les quatorze régions da nga doon gis ne train bi da ko doon desservir ba pare da doon dem ba Mali ba pare train loo ko yan mu jël ko mais et puis normé kii dawal dañ koy jàngal nu ñuy dawalee ba pare balaa train ju jóg dañuy def visite technique xool ndax raay bi pare na juweer loolu ñu doon wax juweer yooyu dañ ci war a dellu si pour que moom comme que ci dans sa déclaration de politique générale ministre bi dafa ne axe trois bi mooy cap sur l' émergence on peut pas émerger de cette manière là dañu waxante dëgg. bu ñu tout à ngi intervenir ak benn kilifa boo xamante ni tey njabootam dafa bokk rek si ñu am ñu ñàkk seen bakkan waaye am na sax beneen kaa boo xamante ni doy na waar na beneen mbokkam dafa am ay damu-damu si tànk ak ci loxo yi bi mu ñëwee nag dañu dafa dañu fekk ñu ne ko docteur bi ko war a ñëwagut yow en tant représentant du peuple euh, lan ngay wax si lool que responsabilité il faut ñu cité yow leen ci ñëpp ku ci ne la nga xam ne loolu nga warloo askan wi da nga ko war a def il est inadmissible ak cette situation pareille que vraiment médecin di retard ba ñu am kuñ ko faj loolu baax na ngeen wax ko yéen aussi da ngeen am rôle tey tey da ngeen am rôle tool ci réew mi mooy yu mel nii yéen ko war a divulguer wax ko ba nit ñi dégg ko xëy na loolu dina tax état dafa war a sévir. s'il faut sanctionner il faut sanctionner parce que tey tubaab bi yarawul de tubaab bi fële ba nga xam ne day respecté lépp yarawul de dañ koo yar foofu noonu boo defee boo defee boo defee boo jalgatee code de la route dañ lay flasher force da ngay fay boo takku ceinture da ngay yow yow mi takku ceinture yow la ñuy amande médecin bi tam bu liggéey si dañ ko war a dañ ko war a sanctionner kii nekk ki nekk ki nekk administration moo xam euh, état civil la nekk ñëw ñëpp tey jii ku ci ne da nga war a jouer sa rôle ku nekk bu jouer rôle loolu moom mooy indi développement loolu moom mooy indi émergence te loolu nag yàlla dafa def ñun dañu am kuñu ñu dénk ki ñu dénk réew mi ñoom ñu ak ses démembrements ñoo war a saytu loolu tey ji normalement loolu du ku ki nga xam ne patient moo ko waroon wax waaye ñu ne ci hôpital bi mooy directeur de l'hôpital moo ko waroon xam bu yàgg ba jël ci ay mesures. ñu lay gërëm bu baax. Euh, di euh, baal ñu fàttali tur bi honorable. Euh, honorable député Ismaïla Diallo. askan bi mu nekk mu nekkoon kii di honorable député Ismaïla Diallo bu coalition yeewi askan wi ba tey ñu taxaw ak ñi nga rek ñoom di honorable honorable ñu ngi leen di nuyu alors ñu ngi leen di seetaan jamono ji alors en direct si. d' accord ñu jël la ça va na nga def yaa ngi ànd rek jamono ji euh, alors naka ngeen amee jàngat ak taxawaay tey si buntu hôpital bi ginnaaw ba ngeen ñëwee ba noppi ngir mën a jaale ak ma saw masaw euh, les familles éplorées si mbir mi. waaw ma sànni si kàddu tuuti rek mais dañuy dem maa ngi tudd si naagay ñëw ànd ak délégation député bu yeewee askan wi ñi nga xamante ne man maa nekk coordonnatrice bu Pastef Kaffrine nekk en même temps coordonnatrice yeewee askan bi fii ci Kaffrine tey àndaloon ak suñu mbokk député yi représenté fi groupe parlementaire bu yeewee askan bi ñëwoon masawu si ñi nga xamante ne ñoom lan euh, ndog ndog bi dal ñëw masawu leen aussi xoolaale situation bi nga xamante ne ci lay nekk ah ñëw nañ nag xanaa di di masaw bu baax a baax population sénégalaise ndax lii métti na parce que man bi ma nekkee Sinna ba léegi maa ngi dé maa ngi door di dégg accident bu tollee nii bañ ciy lim ay ñeent fukki dese kon loolu métti di wax rek nañ bàyyu euh, euh, nañuy fagaru pour que ñuy mën di éviter yii nii parce que man dama jàpp ne yoon wi wóora dina wóora goo xamante ne état du Sénégal war na see jël ay matuwaay yu am solo ba sécurité routière population Sénégal yëpp mun koo am parce que mënuñ dégg chaque weer accident am na te bu am rek gën a métti bi nga xamante ne moom mooy weesu léegi kon ni ko sama morom député yi waxee rek gis ngeen am na ay facteurs yu bëri yu ko booloo par exemple problème de personne la parce que indiscipline bi bëri na beneen bi aussi mooy état yu yoon yi yoon yi baaxuñ xat nañ beneen bi aussi mooy ne état du Sénégal li mu war a def saytu oto yi nga xamante ne ñoom ñooy daw ci tali yi defuñ ko démb maa ngi dégg ministre bi mu ne 45 pour cent ñooy def visite technique te yow ñu dénk la loolu loolu bu amee kon waroon nga jël sa waaye balaa lii di am kon moom il est responsable te loolu war na ñoo taxaw waxtaan ak wax ak askan bi yëpp ñoom lan moo ci responsabilité te ñun Sénégal amuñ culture ku def dara nga teggi sa ndombal tànk bu loolu amoon konoon ku ci nekk dina def li la war. kon nag maa ngi woowaat état du Sénégal ñu delloosiwaat seen xel xam lan mooy priorité ñu def ko ñu yërëm askan wi ndax ñii di dee. njëriñoon nañ seen askan ay xale yu ndaw ñoo dee ci accident bii nii li ci nekk mag bëriwul kon nag nañ yërëm askan wi li nga xamante ne moom la askan wi moom ñu def ko ci terrain bii sama mbokk yi ñu ngi koy wax lii nii rek doyoon na pour faj li nga xamante ne mooy jafe-jafe yoon yi parce que dafay jugee ba Mali dem ba Dakar boo gise accident yi li ko yokk yëpp camion yi nga xamante ne ñu ngi jugee Mali di ñëw Sénégal kon yoon boobu buñ ko defaroon yaakaar naa ne dina wàññi li nga xamante ne moom mooy accident circulation bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ak honorable député Samba Dang euh, honorable Samba Dang ñu ngi lay nuyu di la masaw euh, également seen taxawaay euh, par rapport ak groupe parlementaire bu yeewe askan wi si buntu hôpital Thierno Birahim Ndao bu Kaffrine ginnaaw accident bi mu amee tey ji lan nga ñu mën a wax si tënk rek seen taxawaay tey anchu billahi mina shaitan rajim bismillahi rahmani rahim wasalatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di am naxar naxar bu rëy di jaale ñëpp ñi nga xam ne euh, ñàkk nañ seen bakkan ci accident bi am démb xew-xew bi di xool ñi nga xam ne ñu ngi ci biir hôpital bi nekk ay malade nekk ñoo xam ne mbir mi euh, metti na ci ñoom torop loolu moo tax la groupe parlementaire Yewwi Askan Wi mboolem député yi ci nekk donc seen président groupe di Birame Souleye Diop jiite leen yebal ñu man honorable député Samba Dang ak honorable député Rokhaya Ndiaye ak honorable député Ismaïla Diallo ak la coordinatrice départementale de Pastef Kaffrine ñu ñëw xool si malade xool leen seen wërgu-yaram ndaxte lii métti na tool mbir mi dafa nekk loo xam ne responsable yi dafa responsabilité yi daa bëri euh, donc c'est partagé euh, chauffeur am na ci wàll euh, client am na ci wàll état moo ci ëpp nag wàll ndax état moo yore yoon moom moo war a dem saytu li nga xam ne mooy la sécurité des personnes et des bien kon yoon bi ñi ciy jaar ñëpp donc daanaka moom moo ko yor moo tax ñiy ñaaxaat état boobu que lii moom wax dëgg yàlla bëggatuñ mu am gis nañ ne moom à chaque fois bu événement amee mu def taf yëngal woote benn réunion interministérielle ba pare duñ indi benn solution gis nga yoon bii daa nekkul yoon gis nga li fiy jaar ci ay camion ay camion yoo xam ne ba Mali lañ jëm ñii jëm ba Burkina ñii dem ba euh, Côte d'Ivoire ñii dem bo sax Ghana donc war nañoo góorgóorlu ba nga xam ne yoon bi day nekk ñaari yoon ndax raay bi ba tey moo tax conséquence su tali bi mel nii li fi doon jaar ci ay conteneur li fi doon jaar ci marchandise ñoom ñoo doon jaar ci raay bi di dem malheureusement nag raay bi léegi dematul comme raay bi léegi dematul nag oto yëpp soo obligés jaar fii te bu fi jaaree xat-xat bi day bëri su boobaa nag kon coono bi day am lu mel nii day am moo tax lii métti nañu naqari nañu mais nag ñu ngi félicité médecins yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir en l'occurrence donc docteur euh, Dansokho docteur euh, euh, Cheikh Samb docteur Ñanku euh, euh, Ñanku Sadio ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier par rapport ak taxawaay biñ ñu taxawaay maladie parce que xam nañ ne seen frère lañ seen sœur lañ moo tax ñu taxawaay leen. Euh, honorable ba nga duggee si biir yow ak say collègues député lan nga ñu mun a wax ba ngeen lan ngeen jëlee si biir. mais mais vous l'avez imaginé yéen sax xalaat ngeen ko situation bu métti parce que ñun ñëpp ku nekk na ca na taxaw place boobu noonu bu la lii daloon. boo gaañoo benn gaañu gaañu sawee sax buy métti problème la waxantuma naan accident boo xam ne dalaa bett ñii tànk fracture ñii leneen ak leneen ak leneen muy lu métti loo xam ne luñ mën comme jullit ñaan mooy ngànnaayam ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñu gaaw wër gaaw jóge fii nga xam ne mooy hôpital mais aussi ñu ngi ñaaxaat encore une fois de plus comme nous sommes dans le pouvoir parlementaire état war naa mën a góorgóorlu ba nga xam ne ay yoon yu baax dina fi am war naa mën a góorgóorlu ba nga xam ne code routier bi dinañ ko xoolaat war naa mën a góorgóorlu ba nga xam ne chauffeurs yi dinañ nekk dans d'excellentes conditions ba nga xam ne li a dawal dinañ ko xam oto yi aussi daa nekk dans d'excellentes bi ñi ciy jaar dinañ nekk ci sécurité parce que loolu état la war Mm. lay gërëm honorable euh, Samba Dang bokk si groupe parlementaire bu coalition Yewwi Askan Wi euh, yéen ñi ñuy seetaan daanaka euh, dégg ngeen yéen a ko déggandoo mu nekkoon ay honorable député bokk si groupe parlementaire bi les coalition ñëwoon fi nga xamante ne moom mooy si hôpital régional bu Thierno Birahim ndaw de Kaffrine ngeen gis leen noonu taxaw di wax rek li nga xamante ni moom mooy nii mbir mu tëddee waaye responsabilité bi nga xamante ni rek euh, noone la état am donc bi mbir donc léegi ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ba tey rek ñu euh, ànd ak yéen euh, déjà gis ngeen ci buntu hôpital bi par rapport ak ñi nga xamante ñoom ñoo